ci wàllu njàngale mi dañoo dem nag ba Ziguinchor foofee anam yañ tànnee nag jàngalekat yi nga xam ni ñoom ñoo nar a corriger épreuve BFM yi nag merloo na yenn professeur titulaire yi mu mel ni nag ñoom dañuy ñaawlu rek ne inspection d'académie waru leen fi ne ñukku di jël ñoo xam ne nag ay professeur vacataire lañu ngir ñu liggéey liggéey boobule Carlos Sanka nag moom mooy yore kàddu professeur yooyu ñu teewlu ko rek ci jokkoom ak Cheikh Tidiane Cissé Kaba Cissé. Ziguinchor rek ngay gis chaque année. jusqu'au dernier moment ba jour examen nit ñaa ngi daw ci ginnaaw convocation te boo xoolee ci yeneen IA yëpp un mois avant avant euh, examen convocation yi génn nañ loolu moo tax na boo xoolee ci convocation yi ñun ñi nga xam ne ñun ñoo yor classe su troisième yi ñi nga na def examen dama yaakaar ni ñun ñoo gën a yelloo convocation yi pour dem corriger li ñu jàng mais koo xam ne jàngalul troisième kooku nga jël ko bu demee lan lay corriger. koo xam ni am na ñoo xam ni mois de janvier la ñu ñëw am ñoo xam ni mois de décembre la ñu ñëw ay vacataires ñooñu ñu jël leen lan ñu dem corriger est-ce que ñooñu sax maîtriser nañu programme bi bi ñu ñoom waxtuma laa sax programme troisième. am na ñoo xam ne dañoo yor ñetti convocation am na ñoo xam ne dañoo yor ñaari convocation boo xoolee yëpp la la parce que liggéey boo xam ne du liggéey bu baax lii du respect parce que lii du respect da nga yaakaar ni est-ce que man déwén dinaa nanguwaat yor troisième déwén man du ma yor troisième ñi nga xam ne ñoom la ñuy jël ñu dem corriger vacataires yooyu ñoom la ñuy jox ñu dem ko ñu yor ay troisième bu boobaa kan mooy kan mooy perte mooy xale yi ñooy perte. bu boobaa donc man je dis que pour loolu yëpp bañ am il faut que IA bi laay interpeller parce que lépp ñëpp ñu fi ne kontaan nañu loolu jaaduwul te ñu ngi koy naxarlu.